dañu ñëwoon tey euh, pour clôturer euh, séminaire formation bi nga xam ni euh, dafay permettre ñu mettre ñu taxawal mutuelle de santé euh, journaliste acteur de communication et information euh, ci li ñu gisagum am nañ ci yaakaar bu baax a baax ndaxte gannaaw information yi ñu leen jox li nga xam ni day wone mutuelle ni muy doxee Euh, gis nañ ni yeen ci seen bop da ngeen ci farlu am pas pass ba ngeen defar en place même organe euh, yi nga xamni organe provisoire lañ donc ngeen defar seen conseil d'administration seen bureau seen conseil de surveillance ak yu demee noonu ak seen gérant donc loolu am na solo loolu nag mu ngi tekk ni que yéen ñëpp da ngeen pare déjà pour mu fonctionner pour mu fonctionner nag euh, baax na ngeen xam ni que jàppalante

parce que ce bët ce bëtu doom su xonkee rek sa bët day xong loolu aussi bu len ko faté. donc so len di def prime yi non seulement baax na ngeen xam li ngeen bëgg mais aussi ngeen xam li ngeen attan donc so len xamé mutuel ni muy doxé principe artisanal maladie ni muy doxé su amé ku dugg ci erreur so len fekké mun ngeen rectifier mun ngeen aussi am occasion ngeen ñëw quelque part ñuy wax waxu mutuel de santé ngeen expliquer donc ay porteurs de voix ngeen donc am nañ ci yaakaar lool moo tax pour ñun. partenariat la nekkul ñun rek ñooy ñëw di leen jàppale mais yaakaar nañ ni yéen a yéen a ngi ñuy jàppale. ñeenti fan lañ fi def ci ñeenti fan yooyu lee am na lu bëri loo xamante ne dañ ko fi jëlee déglu nañ xam nañ te dinañ euh, def suñu kéem kattan ba li nga xamante ne moom moo ñu tax a jóg ñu mën ko jëfee li ñu tax a jóg nag mooy fexe ba ñi nga xamante ne dañuy yëngu ci euh, tasum xabaar wala nekk ci communication ñu mën a ñoom tamit. acceté ci li nga xamante ne moom mooy soins de santé yi fekk euh, du ñu génn du ñu du ñu fay lu bëri parce que yeneen secteurs yi ñu ngi ko am mais ñun tamit dañ ko war a am loolu moo tax sax APRES euh, jóg muy association pour l' association de la presse pour l' entraide et la solidarité mooy que ñun ci précarité bi nekk ci milieu bi ñu mun ko wàññi bu baax a baax te yaakaar naa ne wér-gu-yaram boo ko jëlee en charge walla nga wàññil ko benn acteur wàññil nga ko lu bari li nga xamante habitat social boo ko ko wàññilee wàññi nga ko lu bari ci li nga jëm ci précarité loolu moo vraiment ñi ngi jógee fii waaye am na loo xamante la en conseil d'administration pour mun nañ wax comité de de santé bi taxaw na te directeur wax na ko sànq ak ñetti commencé liggéey bi mais liggéey bi la commencé mais pour mu opérationnel dina opération ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo souscrit ci mutuelle de santé